convaincu rek nga mën a jàkkaar lool. très bien c'est-à-dire c'est-à-dire ñan ñoo indi des déjà convaincu gis nga tey ji fi Sénégal toll ça je le dis pour tout le monde c'est valable pour fi Sénégal toll nit ñi seen biir kër. par contre boo xoolee sax kii wax ak ñoom. ci télé bi wala kii wax ak ñoom ci rajo bi la ñuy gën a déglu parce que ci seen oto yi ñu ngi taal rajo yi connecté wu ñëpp connecté wu léegi télévision yi guddi gi ñëpp am débat ay édition spéciale caravane yii ñuy def ci mbedd yi day tax sax duñ leen voté la parce que économie nit ñi informel la gars yi dañuy xëy di doxi seen soxla blocage day am tout le temps nga gis ku def caravane boo xam li mu ci dépensé mat na cinquante millions mm. mais pendant ce temps y a des sénégalais de a des taximans y a des cak-cak yi def livraison y a des personnes wala au à défaut ku bëgg a def caravane nga bàyyi ba ñëpp wàcc guddi te baromètre la damay gis parfois ñoom ñu def meeting yu guddi ba deux heures du matin xale yi toog mais ñu war a tiit en pleine année ngay def meeting guddi xale yëpp toog fa ba xaaju guddi mooy wane liggéey amul. mooy wane ni booy jàngi ji wuñu parce que ñu ngi ci plein accès euh, kii cest à dañ ci war a def yenn étude yi bëccëg bi ni embouteillage yi di mel ni dëkk bi di mel nit ñi dañuy dem jëli yóbbu entreprise yi di tëj tey ku yeewu rek boo xëyee da naan balaa huit heures dinaa am lu ma yóbbu sama kër mais mën nañ la bloqué ci bëccëg bi da ngay gis seen caravanes yi kenn ku ci nekk ay ligne oto yu gudd kooku aussi nañ ci bay Sénégal tollul foofu. am na leader yoo xam ne nii ñu ngi leen xàmmee rien que par seen xam-xam par seen idée ñoom bi ñu ñëwee loolu lañ prone woon nañu indi tra débat d'idée te moom ci wàllu boppam débat d'idée bi moom moo ko faussé parce que kan moo fi nekk di wax waxu haute cour de justice kan moo fi nekk di wax ay diw dafa def lii kan moo fi nekk di wax ay waxi coppet kan moo fi nekk di ñin ñi ni si débat boobu par contre dafa waroon ne mais député mais listam la yor wax na na yóbbu Cheikh Bara mu débat ji na dem yóbbu ñoom ñoom ñoom miss bi mu dem débat ji na dem yóbbu ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi ñu dem débat ji c'est-à-dire loolu la ñu war a def ñu xam yan député ñoo war a dem assemblée on a vécu Abbas Fall assemblée bii jàll dund nañ Koura Macky ci assemblée bi jàll mais dañu war a demaat ci assemblée boo xam ne Sénégal nañu indi seen i député moom pour wan la ni générosité bi ngay wax léegi-léegi mooy du yow rek yaa war a nekk yore débat bi di wax mooy c'est-à-dire yow da nga wax sénégalais yi xale yi fal leen ma ma yóbbul leen ay député te Sénégal loolu dafay war a jeex rupture donc am na benn soxna bu may envoyé message am soxna Awa Niang euh, bokk ci ay ay ñiy xeex liberté dëkk ba fas dafa feebar feebar a tax demul Tamba mu ngi koy naqarlu mm-hmm. ni ma ma jàllale nuyoo boobu ba pare aussi tamit keroog bii dama juum fii keroog mm. euh, seen ancien collègue Cheikh Oumar Talla moom nee na condamné na li xew ci affaire Bougane bi mais man bi may wax keroog man maa juum ma ne ñoo bokk école sama waa classe yi ñoo bokk classe sama waa classe yi ñoom Bouna Ba ak Amadou Awaka ñoom ñoom ñoom laa tooñ parce que nee nañu lu tax manaan dañoo bokkoon classe ak Cheikh Oumar parce que bokkuñu woon classe man maa juum moom dafa redoubler woon. man bi may def si sixième. ñun bi ñuy ñëw def sixième dañoo redoubler fekk ko fa. mu ñëw classe heure yooyu. bu ñëwaan heure yooyu sol silettement di xeex ci classe bi <laughs> léegi ñu jàpp ni maniaque la. c'est-à-dire noonu la woon sama waa ji jàmbaar la man maa <laughs> man maa juumoon. parce que bi may wax maa juum ne ñoo bokkoon classe mais sama waa classe yi bu na baag ñoom Amadou Awaka ñoo ma ne bu ko wax parce que ñoom bokkuñoo ñun sixième lañ doon def mu redoubler fekk ñu fa. après bi ñu ñëwee classe nag xàmmeewu ma ko woon ndax dafa am xees ñu nekkoon suñu classe ñoo xam ne bu ñu ñëw dañuy ngand ngandalu parce que ñun. doonuñu woon ànd ak ñoo xam ne dañuy seulement la ñuy jógee tali bu mag ba fii ñëwee ko école ñu jàppoon benn maniaque la. donc maa juumoon maa ngi jéggalu ci loolu kon condamné l'affaire Bougane il a été reconnaissant li ci des nag jéggal naa ko comme reconnaître na man taalibe Cheikh la ma reconnaître ko li ci des mais maa juumoon te suñu waa classe yi boobu ba léegi ñu ma mere le fait que ma ne ñoo bokkoon classe c'est vrai dañ ko dafa redoublé woon <laughs> fekk ñu fa. merci beaucoup Abou Diallo yow Abou Bakhy Yàlla. Abou euh, mu ngi Euh, mu ngi moo mu ngi noonu alors euh, tout à l'heure <laughs> maa ngi ñëwaat léegi maa ngi annoncé que ne y a euh, altercation entre militants yu APR ak militants yu PASTEF ci seen caravane bi yu doy waar foofee nga xamante ne moom moo di ca Koungheul alors nous sommes en ligne ak sunu ndaw bi topp boobee caravane di Nanko Bagayoko alors Nanko bu dee yaa ngi ñuy dégg lan lañ mën a jàpp ci li nga xamante ne ne am na foofu yaa ngi wax naan am na benn blessé bu ñu enregistré. ok. Euh, très bien ñu ngi lay fay. Euh, mhm. Euh, mhm. naa ko actuellement nag euh, ñuy fàttali ne mu ngi ci àll bi mu ngi ci biir euh, kan euh, Koungheul réseau bi moom mooy daw bu fekkee mën na déplacer wu tuuti également dina dina baax un peu. voilà xam naa dinañ ci ñëwaat bu baax baax réseau bi mooy xaw a daw parce que mu ngi ci biir àll bi ànd ci boobu euh, caravane nday Fatou ñu ngi koy wax euh, gis nañ débat bi euh, ci ci wàllub scène politique bi hmm. surtout ci campagne bi débat bi xaw naa baa tuuti bu ñu sukkandiku même ci ay experts jëm ci wàllub communication ñu ngi koy wax parce que liñ doon xaar peut-être ci candidat yi mooy ñu présenter lii askan wi soxla mais pas ay débat de personnes yoo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku discours bi moom dese naa riche mais une précision sànq ju mu doon wax procureur bi dafa bëgg ñu renvoyer délibéré bi mais le juriste El Amar Thiam nee na procureur mënul renvoyer le procès amul sax pouvoir bi parce que fi mu toll nii juge bi moom euh, mooy la police mooy la police moom mooy jouer vraiment régulateur ci poste donc décision yu ni mel ci juge bi rek lay tënku mais procureur mënu ci dara daal pour euh, euh, effectivement même lu mu mën uh-huh. a juge bi moom moo ko mën a décider mais moom amuñu ci amul benn pouvoir. effectivement euh, ci wàllu woowu itam rectifier parce que bëggu dëgg ba tey am na ñoo xamante ne itam ci seeni bind dañu naan le procureur plaide. le hmm. procureur du plaider procureur dafay requiert donc loolu aussi ñu ci bàyyi xel à charge bu ko neexee mu nekk hmm. def également à décharge hmm. merci beaucoup Ndeye faatu ci euh, loolu nga xamante ne euh, wax nga ko jëm ci précision boobu c'est important peut-être ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom lañ doon di wax depuis sànq ñeel wàllub bi Euh, campagne bi euh, Ndeye Fatou. débat bi moom dese naa riche ndaxte man li ma doon xaar ci élection législative Fatima euh, il faut d'abord candidat yi xam lan mooy rôle assemblée nationale parce que man su ma déggee ñenn ñi di wax dafa mel ni ñoom ñiy laaj assemblée xamuñu luy rôle assemblée nationale. parce que assemblée nationale ñaari rôle yi rek la am mooy législateur maanaam di voter ay loi loi yoo xam ne soit proposition lay doon maanaam yu jógee ci député wala loi yoo xam ne projet lay doon muy jóge jógee ci président de la république wala ci gouvernement euh, jëm fi nga xamante ne moo di assemblée nationale donc à part euh, rôle de législateur boobu ñu am mu di voter loi leneen la am muy rôle contrôle de l'action gouvernementale contrôle boobu mooy lépp lu ñuy liggéey ci gouvernement bi rawatina lu ñuy natt ci wàllu budget yorin beeg doxalin beeg lépp ñoom ñoo koy décider bu dee dañu ne budget bi temps la Euh, ñu xool li ci gën ñu di ko def wala su fekkee ne am na yuñ ci mën a mooy indi session budgétaire xam nga ngay gis. di wax sa programme. Mhm. ñu ne budget euh, ministre bi lii lañ ko nattal ci budget mu taxaw wax ne lii laa ci nam lii laa ci nam ngay gis ay député ñëw naan ci sa budget boobu bu ci fàtte tel localité wala bu ci fàtte tel secteur ak yooyu noonu. defee li ma la wax wala nga engagé wu ci li ma la wax ne di nga ko def dinaa voté sa budget ñu waxtaan ci. ministre bi ñëw joxe ay engagement te suñu voté ba pare après dañuy ñëwaat ci début session budgétaire ñu def loi de loi de règlement loi de règlement foofu la ñuy ñëwee pour xoolaat budget bi ñu nattoon daaw lan lañ ci utiliser fu ñu ko dugal ak lu ci des bu dee desul